daanaka mooy bi gën a yàgg gën a ancien euh, boo xam ne depuis Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani mooy law di law ba yegg ci fii kon Sénégal jàpp naa ne bu fekkee dem naa Touba ci màggal gi dem Tiwaawoon ci gàmmu war naa ñëw Njaasaan ci seen gàmmu juróom-ñetti fan ndax boo limee ñett ñooñu muy xaadiriya tijaaniya ak muridiya te sax doo xool diggante yi ndax dafa jaxasoo lool kon nank nga en tout cas diine l'islam ci senegal mu def nag kër yu bari ñu ngi fii kilifa yu bari walla yu bari jaar nañu fii ñoom ñépp nag ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen xamal ni gouvernement bi daf fi nekk ngir jàppale citoyen yi ci biir citoyen yi jullit yi ci lañu bokk chrétiens yi ci lañu bokk kon ngëm-ngëm gi ñun suñu wareef mooy jàppale këru diine yi ndax xëy na doole taalibe yi du mën a gaaw motali li nga xam ne moom la melokaanu dëkk yi laaj moo waral ma taxawal programme boobu ñu tuddee programme de modernisation des cités religieuses loolu tam maa ngi ñaan ngeen yokkal ñu ñaan ndax ñu mën a am jotu mottali ko ndax liggéey la boo xam ne tam du liggéey bu ñu def ci benn at walla ñaari at kon faaw ñu may ñu ñuy programmer waaye bu ñëpp bëggee nag ci benn at bi ñu tabaxal ñëpp ay jumaa tabaxal ñëpp ay lu nekk seen dëkk dafay xaw a doy waat moo tax maa ngi wax na ñëpp dalal seen xel xam ne liggéey bi ñëpp a si bokk du am poddiku wante duñ si sampi kenn ñëpp ko seq te bu ci yàlla àndee daañu mottali sunu yéene kon fu mu yegg seegul it nañu xam ne mu ngi ñëw te ñu ñaanal ñu rek ñu am kàttanu ak yéene mottali li nga xam ne moom lañu ñu euh, jagleel dëkk diine yooyu nga xam ne war nañ ci taxaw fii si Ndiassane xam naa ni ci atum 1883 seen maam maam Cheikh maam Cheikh Bou Mohamed moo sànc Ndiassane mu téeméeri at ak fanweer ak ñaar kon dëkk bu mel noonu ci diine ci jaamu yàlla euh, war nañ ko taxaw jàppale ko moo waral lii ñu fi tàmbali muy résidence kër mag moom yéen ko jox tur boobu muy résidence di xalif xam ngeen ne tàmbali woon nañ ko sax lu jiitu may ñëw ci bopp réew mi waaye dañu ko xaymawaat euh, defaraat liggéey bi moo waraloon mu am tuuti retard waaye bu ci yàllaande fii ak ñeenti weer bi juróom liggéey boobu dana mot incha allah esplanade bi nga xam ne tam AGETIP moo ko sumboon yaakaar naa ni xëy na pareegul waaye dinaa fa jaar léegi xool chantier yi ma fi jógee incha allah euh, waaye dinaa aussi wax gouvernement bi ak AGETIP ñu baral seen loxo ba nga xam ni euh, da ngeen mën a am bayal boo xam ne bu gàmm jotatee ngeen di màggal sang bu tedd bi ah, dana gën a yomb lool ci wàllu toogaay ak wàllu ah, mottali seen jaamu yàlla li ci des nag wax ngeen ko xalif bi wax na ma ko xam naa itam lool lool si grande mosquée bu Ndiassane incha allah loolu it li ma ci wax li ma ci wax rek mooy dégg naa ko te bu ci yàlla àndee daañu ko def waaw xam naa nag léegi gaa ñi commencé naa moom ay jumaa lay tabax <laughs> ay jàkk lay tabax waaye nag dañu dañu war a xam ni li nga xam ne moom la nit ñi gëm dañ leen ci war a jàppale muy seen ngëm-ngëm ak nu ñu mottalee seen jàmm yàlla loolu tubaab yi ñoo ñu jiitu ndax boo demee tey Europe lépp lu fay église yu mag gouvernement yi ñoo ko tabaxoon ci jamono ji nga xam ne euh, Europe jàppoon na ni seen diine diine chrétien état yi waroon nañ ci taxaw ba jamono bi ñu defee séparation entre état ak église laïcité bi dugg waaye du tere ba tey euh, fépp foo xamante ni gëm-gëmu doomu aadama yi mën nga fa te Sénégal réew la moo xam ne ni mu bindoo mooy ay waay gëm ñoo fi ndëkk moo xam nag lu ñu mën di gëm waaye gëm nañu yàlla ñu ci gën a bari am nañu diine ay jullit lañu li ci gën a bari waaye am nañu gëm itam yàlla nekk ay chrétien di donc ay waaye gëm am nañu gëm leneen kon booy xayma téeméer bu ne ëpp ne juróom-ñeent fukk ñoo xam ne ay way ngëm lañu kon ñun suñu wareef rek mooy jàppale leen ku nekk ci la mu gëm tànk yàqalul kenn ñun amuñ ci benn jafe-jafe bu kenn jàpp it ne la mu gëm rek mooy li am keneen la mu gëm mu ngi nax boppam loolu tam de indi musiba ci réew ku ne jàppal sa ngëm-ngëm sàmm sa diine te nga bàyyi keneen ak diinam su gëmul yàlla sax mbiram la digganteem la ak boromam waaye keneen waru ko mun a jéem a saafara wala di ci indi yeneen jafe-jafe li ci des tam xalif bi la ma wax keroog la rek laay waxaat fii si Ndiassane ñu ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam ne. njaboot gi ci yéen la ajo ak taalibe yi ngeen di waxtaan ak ñoom si musiba yu bees yu jóg ci àdduna bi di dugg ci réew yi di law te daanaka boo xool amul benn réew nag bu mu duggul ci suñu réew mi di indi façon bu bees xam nga ñun teeru nañ fi président léegi bi xalif bi ñëwee ngeen teeru kay wax loolu mooy suñu façon suñu lislaam tam nañu bàyyi ñu defe ko ni nga xam ne noonu la dalee suñu xel waaye kenn du tàccu kenn du ree kenn du fo loolu day xaw a metti nañu nañu nañu fonk rek nit ñi ci li nga xam ne noon la leen yàlla bindee wala boog doon lañ fas yéene dund moo tax il faut ngeen waxtaan ak taalibe yi waxtaan ak mbokk yi ñu delloo ci seen xel kenn ba a këf seen xel yi ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon waaw loolu dafa am solo te loolu sëriñ si ñoo ko mën ñun état li ñu mën mooy joxe kaarange li ñu mën mooy organiser réew mi teg yoon muy dox ci wàllu réew mi waaye nag liy dem ci ngëm-ngëm yi kooku wàllu nitu diine yi la kon ñoom ñoo war a waxtaan ak njaboot gi daloo ci xel yi ba dara du mën a yàq li nga xam ni mooy jàmm ji ñu am ci senegal ba tax réew yépp naw ñu ñu sàmm jàmm jooju fonk ko ba nga xam ne ah, senegal dana mën a mucc si musiba yi am ci réew yi ñu wër kon foofu laa bëgg a yemale kàddu gi di leen santaat du sant xalif bi raj Mambu Mouhamed Kounta di ko feddali itam sunu kollëre di sàkku si yow ñaan ñeel réew mi eh, ngir yàlla yokk xéw li fi am yokk naataange gi ren sant nañ bu baax ci ni nawet bi demee ñu ngi sàkk ngeen dolli ñaan ngir jàmm gën fee yaatu senegal gën a jëm kanam ñu ñaan it yàlla bàyyi lu yàgg lool ci kanamu njaboot gi di la sant di la gërëm wasalaam